il y a quelqu'un troisième candidat mandat ñu bañal ko ko il est en train quelque part de réussir un autre pari de troisième mandat parce que aller sur le sens sur Ba c'est une troisième troisième mandat de Macky Sall du leneen c'est la même chose c'est une continuité Mimi Touré tey opposition bi la euh, est-ce que jàpp nga bi parce que man je n'ai pas le le le le les les pour dire kan moo nekk ci opposition kan moo ko nekk Sénégalais yi ñoom ku ñu jàpp ni opposant nga wala doo opposant donc je considère que ku ne boppam opposant la opposant la li ma ci xam mooy kenn ku nekk war nga toog ci sa lël nga jéem a ñu jéem a lëlu ñun opposition bi ñun ñi bëgg boog jëli fi Macky Sall malgré que nañu wuti parrainage malgré que nañu def les procédures mais na nu waxtaan ñu xool plan B ak plan Z ak comment faire pour que en tout cas l'opposition puisse présenter un candidat qui va gagner dès les premiers tours